salaam dal leen jàmm ci seen podcast mën na nekk podcast bi dugg fépp ci Sénégal di waxtaan ak ndaw yi nekk seen dëkk di fa xëy ak di jàppale seen ay moroom ci wàllu samp sa këru liggéey wutum xëy ak sàkku xam-xam tey nag ñu ngi ci région bi nga xam ne mooy dëkku Amadou Assane Ndoye Jal Diop ak Seydina Limamou Laye su ma leen nee ñi ngi dëkk Doudou Ndiaye Rose ak Youssou nduur di ngeen xam ne ñi ngi fi ñuy woowee Dakar aka Ndakaaru Ndiaye capitalu Sénégal dëkk bi nga xam ne man mii fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee ku wax capital nag wax koom-koom moo tax fii la laltu yi gën a rëy usines yi gën a ràññeeku ak poor bi gën a mag ci réew mi nekk. ci gox bi ñuy woowee Parcelles Assainies nag la ñuy ñëw tey seet fi benn jàmbaar bu tudd Lamine ñu koy woowee tamit marabu Mayène samp këru liggéeyam ci wàllu audiovisuel ñu fàttali ni audiovisuel mooy liggéeyu ñu nekk ci ginnaaw lépp lu waaye di seetaan ci tele ci cinéma. mbaa ci internet. Lamine naka moom. waaye delloo ziare zo. lépp jaam sant alhamdulilah. Lamine aka. waaw marabu marabu Mayen. marabu Mayen. lan moo la dugal ci audiovisuel Lamine. Euh, bon audiovisuel histoire bu xaw a comique la quoi. li ma si dugal parce que de base je suis de base informatique laa def mais à travers des amis yi nga xam ne dañ doon def euh, audiovisuel ma leen doon kaa ñëw. mu laa leen non yéen li ngeen def amul awane tugg na fii peut-être yi affaire yooyu par la suite ñu invité ma si benn tournage bi ñu doon def et c'est là que j'ai adopté adopté le métier. ok mais la dañ invité ci tournage bi nga fekkee ko rek nga ne en fait man lii dama am envie def. voilà c'est ça quoi. lan moo la ci attiré. Euh, li ma attiré mooy euh, le fait que ñu téye caméra bi ñu doon bouger les mouvements voilà dem ba doon loo xam ne dafa nekkoon quelque chose de spectaculaire bon j'étais xale laa mu marqué la quoi mu marqué ma quoi. je pense pas que passion bu yàgg nekk ci yow la mais peut-être ñeme woo ko woon assumer. bon mën na nekk. parce que boo xoolee mën naa ne euh, si ay musiciens la màggee dana naa gis ñuy dem di ñëw mais nit dina am luy nelaw si yow loo xam ne doo ko xam mais faut que am benn élément déclencheur bu koy génnee si yow quoi. premier projet bi nga def en audiovisuel. ban ban lan la premier projet bi mën naa ne doon na loo xam ne du ma ko du ma ko mës a fàtte dama nekkoon ak benn copain mu ngi doon doog débuté si rap man tamit maa doon doog débuté en audiovisuel mais xam nga rek affaire de dëgër fit on s'est dit dañuy def benn clip avec zéro expérience xaw ma woon sax nan la ñuy bindee scénario nan la ñuy defee ainsi de suite ñu dëgër fit ak nos moyens du bord ma téye sama caméra benn réflecteur moom mu indi baaf ñu dugg cité mixta voilà rajaxe gars yi rek duñu dàq affaire yooyu mais ñu forcé mais moment boobu juste gëm-gëm lañ doon demee ak euh, wax ne mën na nekk te mujj ko def def nañ ko après am na ay retours yu si am bon am na ñu naan doon ñu doon wax naan nice ñu naan ok affaire yooyu mais au fil du ngay dem Euh, du dara quoi. Mm-hmm. parce que dem niveau bi di gën di yokku di gën a gën a dem. parce que milieu bi moo demee noonu da def dara rares sont les personnes yu lay toog ne la non li baaxul li ak lii ak lii mais la plupart dañ la naan baax na baax na baax na. mais yow yaay toog am autocritique nangu tamit autocritique def benn affaire benn yoon deuxième fois nga defaat benn kii nga def benn comparaison là di nga xam carrément que ne. lii baax na lii baaxul ak euh, évolution ak sa évolution. tey ci lan nga gën a spécialisé wu ak ñan ñoo ci say principaux clients. bon instant yii maa ngi spécialisé aussi le clips vidéo ak euh, vidéo institutionnelle yi. ok c'est quoi la différence entre les deux. bon am na différence bu rëy parce que clip bon c'est de la folie hein. Mhm. voilà artistique ngay feeñal def des trucs de fou. da ngay en fait tu te libères quoi voilà li nekk génn li nekk si yow ngay génne or que côté institutionnel bi c'est plus strict il y a suivre et il y a des règles yoo xam ne da nga ko war a topp quoi. pour yow lan la jeune fii Sénégal soxla pour mën a entreprendre dem ba am liggéeyu boppam. bon bu njëkk moy gëm sa bopp loolu dafa am dafa am solo quoi tey boo nekkee si dara te gëmoo sa bopp pour man am avancement voilà motivation. ak euh, surtout surtout patience il faut que jeunes yi gën a bàyyi xel si ñi leen di conseiller. merci beaucoup Gaël. ok waaw félicitations. biir Dakar bëri na secteur yu ndaw yi toll ci liggéey mën a jublu mën ngeen liggéey ci technologie tourisme pêche agrobusiness artisanat ak yeneen yu bëri yoo xam ne mën ngeen ko gëstu boo leen demee pôle emploi. pôle emploi Dakar mi ngi nekk Colobane ci wetu caisse de sécurité sociale bi pôle emploi wu mi ngi nekk Waaxinaan Nimzaat jàkkaarloo ak mairie bi pôle emploi wu mi ngi nekk ci préfecture u pikin pôle emploi wu Rufisque mi ngi nekk Guédel pôle emploi Kër Massar mi ngi nekk ci préfecture u Kër masaar pôle emploi wu Yëmbal mi ngi jàkkaarloog station benn baraak képp kuy ndaw ci région wu Dakar te bëgg tàggatu am na formation yoo mun def te du lu dikkee dara mbaamu mu dikkee la lu néew mun ngeen tàggatu ci plomberie réseau informatique transport logistique et transit installation de panneaux solaires géomatique ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen demee Instagram ak Facebook ci page yu mën na nekk di ngeen fa fekk information yi ngeen ciy soxla yépp amul bukki xaaruñ ndimbal pour lekk ah vert jaune rouge team équipe bu champion lay play Sénégal yi bëri feeling fa ma fekk damay gëleen sama tàll yëpp wigit du ma dox ci lu tilim dox ci lu ma yaa ngi gën samay clip xale yi xam nañ aw ma limite limite mu neer bu dee sama musique dégg gën naat samay 18 àdduna ndekk te jaar jaar mooy lépp jaar jaar àdduna mi ngi ni jaay taar du fay àdduna métti na waaye nag Baay Faal bul tiit ndax Baay Faal welcome back ci seen podcast mën na nekk en direct de la région de Dakar comme ni ñu koy defee ci région yëpp bu ñu waxtaanee ak benn entrepreneur ci liggéeyam ba pare dañuy waxtaan ak ki nga xam ne nag mooy champion wala championne du réseau des champions pour réussir au Sénégal ñu fàttali ni réseau boobu mi ngi doon benn kuréelu ay jeunes yu jógee ci région yëpp ñu xamee leen gindi bépp ndaw ci wàllu samp sa këru liggéey wutum xëy ak sàkku xam-xam fépp ci Sénégal tey dama fi dalal ki nga xam ne mooy championne RCRS de la région de Dakar ñu koy woowee Ami Ndiaye. Ami na nga def. merci. ça bien ça va xam nañ ne Dakar mooy capitalu Sénégal mais pour personnel personnellement. lan mooy particularité wu région de Dakar. pour man particularité bi nga xam ne jeunes yi am nañ ko. à Dakar c'est l'entrepreneuriat parce que tey jii bu ñu ne le pouvoir d'achat est là kon il nous suffit juste d'être créatif de mettre en place quelque chose boo xam ne c'est innovant boo xam ne jeunes yi mën nañ ko def pour mettre en place seeni entreprise pour trouver de l'emploi pour man avantage bi Dakar am par rapport. aux raisons pour man loolu mooy li gën a am solo pour jeunes yi mun a trouver de de l'emploi ici dans la région de Dakar. yéen ñi nekk ci réseau bi nga xamante ne Dakar c'est une ville très dynamique lan mooy seen challenge par rapport aux jeunes yi war a ñëw ci yéen pour ngeen jàppale leen ñu wut liggéey wala ñu lancé wu dans l'entrepreneuriat. Euh, toujours à chaque fois jeune bi bu ñëwee dañuy xool profilam suñu xoolee profil am bu fekkee jeune boo xam ne instant bi formation la soxla dañ koy orienter vers les pole emploi parce que dans les pôles emploi foofu structure yi nga xam ne ñooy offrir formation jeunes yëpp ñu ngi fa soo demee foofu wala nga nekk koo xam ne tey da nga am métier menuisier nga maçon nga mais amoo certificat buy justifier sa sa say aptitude pour mën a dugg dans la fonction publique buñ la yóbboo dans dans dans les pôles emploi di nga fa fekk ñoo xam ne dinañ la former defal la benn formation accélérée ba nga xam ne yow compétence di nga am lu koy justifier di nga am ay diplôme même foo mën a dem dans le dans le pays wala nga bëgg a dugg fonction publique di nga fa mën a di nga fa mën a dugg. fan lañ leen mën waaw mu ngeen ñoo euh, contacter si 77 145 79 32 wala ngeen dem ci suñu page Facebook réseau des champions pour réussir au Sénégal su ngeen ñu contacter incha allah dinañ leen orienter xamal la nan ngeen def pour intégré réseau bi wala bénéficier wu si formation yi existé au Sénégal. merci beaucoup Amie. merci Elzo <laughs> merci. ñoo ko déggandoo sama gars yi képp ku bëgg am sa liggéeyu bopp wut xëy. wala am métier boo bëgg jàng mun nga contacter lu réseau des champions pour réussir au Sénégal jeunesse su Sénégal bi yëpp lañ fi nekkal. podcast bii nag mooy tëj suñu première tournée mën na nekk bi nga xam ne def nañ ko ci quatorze régions au Sénégal bi yëpp. kon maa ngi leen di big up yéen ñiy déglu suñu émission rajo yi di seetaan suñu émission télé yi di ñëw ci suñu concert yi. maa ngi big up tamit équipe bi ma àndal ci tournée mën na nekk bi xam naa ni dinañ demaat ci région yëpp ak yeneen ngir suqali suñu réew mi nga xam ne ndaw yi ñoo ko mën a jëmale kanam mën na nekk. te dina nekk incha allah jaajëfi te sama gars yi jàmm dong la. mën a nekk mën a nekk am fi koom-koom alal ak ndam dina nekk.